ñoo ngi koy yëgal mbooleem fu nekk ñoo ngi lay wax ne nga ñëw santale ñu yàlla asani madimba mon hoyta na gamo fe i mbiyame ke o xiid nu refna na yombal na faas mbaaw e inchallah in way ngooytan le 30 no ngoolonge no ngoolonge yee nongol marsi in way ngoytan teen tam nu o kiina na adna fe rek to la la ilaha muhammad rasulullah in way ngoynam re babacar sadj a refka tamsir tamsir oustaz sadj inchallahu rabbi khady diaw ayda faye dena nget ka meen in way ngeda fop nu te soɓna no wod o garir nu te soɓuna yasam roga wodanom bo o waga soɓida in teen in way ngoy ci ndigalu cheikh ahmada tidiani khalifa ak ndigalu Cheikh Baba Lamine bi nga xam ne moo ñu nekkal fii ci région de Cap-Vert Dakar imam Cheikh Alioune Tidiane Alioune Cissé ak Cheikh Mouhamadul Maki Ibrahim bi nga xam ne mooy suñu sëriñ mooy taxawu tusu gàmmu gi incha allah ñu ngi woo ñëpp ci képp koo xam ne rek da ngay wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ñu ngi lay woo siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wala ddaalliin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ولقى والقاتل شرح ناصر بالأحوال هادي إلى صراطك المستقيم على wa salaamun alal mursaliin alhamdulilah